ñoo xam ni am nañ ci ñoom yaakaar pour ñu représenter euh, département bi fële ci assemblée euh, umpule woon ni yàgg nga ma dégg may jooy naan ñun piir dañoo yàgg dañoo dañoo bëgg député euh, déposé woon naa comme samay morom waaye wax naa ko keroog ca réunion ba ba classement ba génnee dama caa nangu ku ñu jiital ñu ni jóob si teg ci ay meeru teg ci sëyna bu mii teg ci yaaya man bi ma ko liiree damaa nangu parce que loolu mënuñoo am lu ëpp loolu ci département ba ma koy wax tamit waa Pire ba ma naan député député bu nekk ci nguur gee tax may wax ndaxte député bu nekk opposition amul njariñ loolu moom dama bëgg waa Pire gépp xam ko yow it nga xamee ko noonu voilà donc Diagne si mi ngi nii toog di borom bokk dëkk ci dëkk ci kër gi miin kër gi sëy na Seynabou la présidente Seynabou mi ngi nii toog moom it miin loolu kër gi sunu sœur yaaya moom it voilà sunu sœur yaaya tamit mi ngi noonu tamit di di di di sama xaritu bopp xaritu département bi la mais man sama xarit personnellement la ak kële nga xam ne moom moo di jiite ak euh, Diop si mi nga xam ne nekku fi ak délégation bi am am na tamit ay ay ay yoo xam ni tamit wax dëgg yàlla ci list bi lañ bokkoon mais ak la ca xew ñëpp xam nañ ko mais terewul ñooñu tamit nekk ay jàmbaar lool ci ci ci département bi fas yéene liggéey pour euh, Benno Bokk Yaakaar am ndam lu rëy au niveau départemental ba pare gagné euh, élection yi au niveau national pour que président mën a am doole. ca assemblée ba pour que liggéey bii nga xam ne yaa ngi koy dégg ñu naan ñëpp ngi dégg ñu naan Pire bouge ni ñaa ngi koy wax dëkk bi nee nañ ñu piir mi ngi bouge waa dëkk bi nag nee naa leen Pire li koy bouger président Macky Sall moo tax muy bouger ndaxte ba ma gañee damaa dem jël samay lenge dénk ko sama bopp mu nangu ko di ma jàppale moo tax yi ngi ah, euh, yenn réalisation yi ngay dégg ci dëkk bi du man maa ko def du maire bi état wu Sénégal moo may jàppale état wu Sénégal mooy président Macky donc ma bëggoon nga dalal gani ñaanal leen pour que jour baa ñu am ndam lu raw liñ daan am te kër gii di kër sunu kër dëkk sunu ëttu maam Amad Cissé bii yaa ma ko wax sëñ Moustapha wax ma ko sama papa Maodo wax ma ko ni ma sëñ Amad Cissé de mu tële woon na lépp waaye ñaanal nit ñaan ko nangu moom tëlewu ko woon moo ko waxal boppam donc ñaan goog nga ma ñaanaloon ba ma am ndam li jël maire bi ñaan ku ko raw laa bëgg nga ñaanal ko ñii ñu gagné département bi xaa xam nga ma xam tëju nañ ñun ñaar rek ci néeg ba nga am loo ma wax lag moo waxoon nag laa bëgg nga wax ko ñii ñu jël ndam li waaw loolu daal mm, laa amoon lu may wax xam naa ni su kiyee rek ñu daal di jox kàddu gi eh, jaan si mi nga xam ne moom ci kër gi di ñuy tamit sunu frères yi ngi lay nuyu di la ziyaar di jéggalu ci dérangement bi sëriñ bi rek lay wax nag du ma wax nijaay ndaxte tey jii sa cëru xalifa maam Tafsir Abdou Cissé lañ la seetsee war a ñëw tàllal loxo ñaan bu ma yegsee si nijaay ji nag bu boobaa lay laaj jàppale bi waaye sëriñ bi moom ñaan lañuy sàkku ci moom dinaa ci ñëw léegi ñu nuyu ko ziyaar ko nuyu sëriñ Mansour Cissé ibnu sëriñ Amadou Cissé Pire nuyu sëriñ maam Abdou ibnu sëriñ Mansour sëriñ Moustapha ah voilà Serigne Mansour di turandoo xalif bi xalif bi it nekk turandoo maam Alaaji Mansour bu maam Cheikh Seydi Hadji Malick dégg naa nag ba mu koy may werd moom amagul fukki at bi ko moom Alaaji Mansour balxaw mi damay werd amagul fukki at te maam Mansour nag dafa am lu mu fasanteeg ay turandoom kon ñu ngi lay nuyu di la ziar jaar ci yow ziara famille maam Tafsir Abdou Cissé yëpp ni ko Ndoye Bane waxee tey ñu seet si la ah man de seeti naa Abdou Diouf yàggul président de la république mu ni ma sëñ Amath Cissé su ma musaan di ñaanal je suis confiant sama am Amath Cissé su ma daan ñaanal damay jàpp confiance kon nag ñun dañu bëgg boo ñuy ñaanal ñu jàpp confiance boobu beneen bi xam naa fii nag discours bi dina uteeg yi ma jot a tenir fu ma jaar yëpp sëriñ euh, honorable député Massal Gueye Massal Gueye dafa seet si woon sa maam Papa Cissé ni ko dañuy def élection pour fal député ma bëggoon nga ñaanal ma ma bokk ci sa maam papa ni ko bu doon benn député la yow yaay falu ñu dem liste yi génn moom nekkul ci liste yi moom Massal Gueye mu ñëw seet si góor gi ni ko ah xam naa daal lañ doon wut mujj ñu ko am ndaxte liste yi nekkuma ci sam maam ni ko man day seen misu nara ndasaraan yi xaw ma waaye daal dama ni bu dee benn député la ñuy fal yow yaay falu jamono yooyu suppléant amul woon ñu toog diir balaa élection yi Senghor dugal suppléant mu nekk premier suppléant ñu def élection yi élection yi jàll député yi am ñuñ ci fal ministre Massa la nekk député loolu ne woon ci ñoom nag ñun gëm nañ ni tey yow yaa ko yore kon foofu lañ lay poñe léegi nag jarbaat bay wax <laughs> pour nga ñaanal ñu li ñu bëgg ci département bi ñu am ko ni ko Ndoye waxee léegi ci département bi ñi ngi ci investir le président ay Aymérou Gningue moom moo jiite liste bi ci département bi madame la ministre présidente conseil départemental Seynabou Gueye Touré tegu ci waaye mënoon na yem foofu mais président sedd bu mu sedd cër département bi mu jëlaat le maire de Tivaouane Demba Diop si def ko si liste nationale mu jëlaat honorable député Yaya Diallo bi nekk président des jeunesses féminines bu parti socialiste defaat ko ci kon ñun Tivaouane ñu am yaakaar ni su élection yu weesoo dinañu am ñeenti député ah député nag boo ko doonee ci péncum ndaw réew mi la gox ba soxla buñ ko déggee ci benn kàddu day baax waaye buñ ko déggee ci ñaar ñett ba ñeenti kàddu day gën a baax kon ñun waa département bi yëpp dañu am obligation xar suñu tànk tubéy ba ñii nga xam ne investir nañ leen ñu nekk ay député waaye contexte bi ñu nekk nga xamante ni tey jii suñu bàyyee yëf yi noonu am na li ñuy wax ay marchand d'illusion yoo xam ni mën nañu fëkk ndaw ñi te ñun dañ jàpp ni nag intérêt Sénégal mooy ki nga xam ni def nañu gis muy président de la République Macky bokk ak ñun ay valeur fonk kilifa diine yi balaa dara am lu mu ñu wan ci lu mu mën ak lu mu yéene senegal dañu ñaan mu am hémicycle boo xam ne lu mu fa yóbbu te nga xam ne njariñu Sénégal la ñooñu voté ko te du am benn jafe-jafe munul nekk sax waaye tey bu doon opposition dafa ëpp doole lu mu yëkkati jëme ko ci luy yokk senegal politique rek la ñuy gis te dinañ fexe ba loolu du jàll kon nag kooku nga xamante nii tey ñun moom la ñu àndal ci wàllu politique moom la ñuy doxal pour que li mu bëgg mu am ko maire laa woon Tivaouane nekkatuma ko waaye ñii ànd ñëpp dañ ne ma yow yaay soldaar bi ñuy doxal pour li ñu bëgg ci département bi ñu am ko ñu ànd ko nag ñun ñëpp kon nag danga nga am nijaay double défi défi maam Tafsir Abdou Cissé ñaanam rot si lii ñu bëgg ba ñu am ko beneen défi bi mooy sa jarbaatit ànd ak ñii ñu investir ak maire département bi yëpp am ndab loolu nag mooy li ñu yëkkati ñu ñëw fekk si monsieur le maire sëriñ Boub woon na ma sànq ne ma ñoom Abdou Ba dinañu ñëw ndax moom tey dafa am gàllankoor moo tax ñëwul kon ñëw naa ànd ak délégation bi mais jiitu leen fi teeru leen dalal leen ci sama kër maam sàkku ñaan waaye nag comme ni ma ko waxee sànq sañ nañu nag sàkku jàppale ci lii a ah, wax nga ni léegi biñ tuddee Seynabou Gaye nga ni sama doom la su keneen ñëwoon tey ji bokkul ci bennoo su ñëwee fii ndax fii ñëpp a fii ñëw di ko recevoir waaye defe naa nag tey dina gën a yomb ci yow bi mu fekkee ni ñun ñëpp à l'unanimité ñoo ànd doon benn rot si sa kanam di dagaat nag baatu askan bi waaye di sàkku ñaan pour que yàlla defal ñu ndam ci lii ñu jëm lii rek moo doon kàddu yi mooy nuyu sama tante Sukay Cissé bi ci biir di nuyu Serigne Maodo di nuyu sama tante Rokhaya di nuyu sëñ xalifa di nuyu famille bi yëpp monsieur le maire lii daal mooy kàddu yi nga xam ni moom laa bëggoon a rotal ci kanamu xalifa bi wax ko ni yaakaar moo ñu indi bu baax a baax parce que xam nañ ni ah am na lu fi ne loo xamante ni boo ñu fi xase yàlla mën na def sutura li ñu bëgg ñu ñu am ko.